kon laqad jaakum mu ngóog bu ko defee nag ma jukkil leen njëriñu aaya yu tedd yii ñuy tuddee aayatul xirs lu tax ñu koy tuddee aayatul xirs mooy baatu xarisun aleykum jooju ñëw ca moo tax ñu tuddee ko aayatul xirs lu bari ci nit ñi nag dañ koo miin dañoo miin aayatul xirsi mooy laqad jaakum ci musluwaay dégg nañ mag ñi di nettali ne jamonoy guerre ba surtout première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale ñi ñu yóbbuwoon ci suñ mag ñi laqad jaakum ji ñu ko daan jàng mu leen di protéger ci bal yi bal dalay dal te du tàkk wala bal dal la jàll te kenn du gis liggéey laqad jaakum dégg naa Serigne Cheikh di mooy tul gi rek Serigne Cheikh di nettali mu ne dem na ba mujj gi tubaab bi noonu mag ñi doon jàngee laqad jaakum du mucc tubaab bi day ñëw wéeru la ne la laqad jaakum moo waaye ni mu siiwee ci muslu nu ko raw la siiwee ci moslu ci ñaar yëpp lay dox ndax ci biir laqad jaakum lim boole ñaar rek la azizun alayhi ma anittum jañango xarisun alaykum ñoddeengo rauf ak rahim firiku ba nga ñëwee ba ne foqul xasbiyallah laa ilaha illa huwa mu dar képp lépp wa anna ila rabbikal muntaha moo tax loo bëgg mu ngi ci laqad jaakum buy dàq loo bëgg a mucc buy ñoddi loo bëgg a jëriñoo la am na sax ci kutubu tafaasir yi ñu ciy indi ay xadis di ko askane yonent bi waaye dañuy gis ne xadis yooyu borom xam-xam yi dañ koy jëm de tura leen ni ñu ne mawdu leen ni ñu ne daif moo tax balha dalik pour ñu bañ a dugg ci buntu ba waaye ku ñu wóolu ci xam-xam a ngi nii ku yàlla di xamal muy sayidi wa moolaay ahmad a tijaan yi taalibeem yi nettali nañ jëlee ci moom lu ëpp ñeen fukki njëriñ ñeen fukki secret yoo xam ne Cheikh Tidiane wax na ko ci secret yi ayatul xirsi mooy laqad jaakum ci diggante jañ ak ñoddi sama sang bu baax ba Seydi Ahsan al-Baaqili lii boo demee ci téeréem boobu di Iraa ab ber na ko fa danaa ci jukki nag li ma temps bi may rek ndax maa ngi bëgg a guddee bu njëkk nee na jëlee nañ ci Seydi Ahmad Tidiane mu ne ayatul xirsi mooy laqad jaakum képp ku ko jàng benn yoon gannaaw boo jullee suba yàlla wattul la sa xol bi protéger na la sa xol bi seytaane du ci am agsi loolu nag da koy topp ba julli yi juróom jeex boo jullee suba ba sërmal jàng laqad jaakum benn yoon yàlla wattul na la sa xol bi seytaane du ci am agsi mu ne Seydi Ahmad Tidiane nee na képp ku julli tisbaar ba noppi jàng laqad jaakum benn yoon yàlla dundal sa xol bi ci yàlla saxal ko muy dund xayaata dunya wal axira sa xol bi day dund ci yàlla rek du dee mukk wattu la sa xol bi ba seytaane du ci am accès ca jullik suba nga julli tisbaar def ko yàlla di dundal sa xol bi muy dund ci yàlla sa xol bi du dee mukk nee na ku julli takusaan ba noppi jàng laqad jaakum ba mu jeex mooy ayatul xirs du dee deeyu ni mbetteel mooy li ñuy wax dee gu ñaaw deeyinam du ñaaw mukk xam nga mawtul fuj a yonent bi daan na ci muslu ku bëgg a mucc ci mawtul fuj a del def saa yoo jullee tàkkusaan ba sëlmal jàngal laqad jaakum benn yoon doo dee dee gu ñaw mukk gannaaw tàkkusaan lu ci topp Sidi Ahmad Tidiane yi nag ku julli timis ba noppi jàngal laqad jaakum sama borom wërsëgal ko istiqaama ju kocc lu jafee mu ngi noonu wa allaw istaqaamu ala tariqati la asqaynahum ma an foofu la sekkilo bi nekk istiqaama googu ñu bëgg tam jafe lool ku ko bëgg a xam saxal di def foo jullee timis ba noppi Seydi Ahmad Tidiane mu ne nga jàng laqad jaakum benn yoon ne ko ulumu rabbaani la min faydil ilaahi ca wa allamnaahu min ladunnaa foofu la foofu la xam-xam yi di jógee mu ne ko ku julli gee ba noppi jàng laqad jaakum benn yoon sama borom dana ko wattu li ñuy tuddee bàkkaar yu mag du ko mën a defati soo saxoo saa yoo jullee gee ba sëlmal jàng laqad jaakum lépp lu ñuy tuddee bàkkaar bu mag da nga dem ba tële ko doo ko mën a defati lii jar na lu ne julli juróom jeex benn bu ci nekk ak laqad jaakum la muy jëriñ ci gannaawam laqad jaakum moo foor ñu ne ko waaw julli juróom jeex na ndax foofu la laqad jaakum di yem yiw du doy di mu ne witar saa yoo ko jullee ba sëlmal nga jàng laqad jaakum doo ñàkk wërsëg mukk day may xalal fooy def boo jullee witar ba noppi jàng laqad jaakum bala ngaa tëdd doo ñàkk wërsëg te nee na sama borom dana la fegal li ragal ci mbindeefu yàlla yi da nga dem lu dul yàlla doo ko ragalati te loolu rek wërsëg la kon ku bëgg a am wërsëg del jàng laqad jaakum gannaaw jullit witar Seydi Ahmad Tidiane ñu ne ko waaw ba tey farata yi jeex nañ waaye sunna yi jeexaguñ de mu ne gannaaw jullit ayit genn gu ci nekk ci ñaari ayit yi am na laqad jaakum lu mu fay jëriñ lu bokk nag morom mu ne bu ñu jullee ayidul fitri te léegi tey ñu jublu ko muy korite ba pare iidul fitri buñ ko jullee ba pare nga jàng laqad jaakum juróom-ñaari yoon at moo ko def at moom say nopp du ci tëx soo bëggee sa giiru dund bul mos a tëx ak loo gudd gudd fan fexeel bis buñ na tayle korité buñ jullee ba sëlmal nga jàng juróom-ñaari laqad jaakum Seydi Ahmada Tijaani mu ne ku ko saxal di def at moo ko def daal at moom doo ci tax xaw ma nga jël menn at nag waaye at moo ko def at moom doo ci tax leer na boo ko saxalee sa giir dund doo tax am na fi ñu dund téeméeri at ba tey loo wax ñu dégg ko loolu mooy gannaaw julli korité gannaaw julli tabaski nag mooy aydul adha Seydi Ahmad Tidiane mu ne ku ca jàng laqad jaakum vingt et un fois assuréel na la sa at moo ko jàng daal at moom doo ci silmaxa soo ko mënee saxal nag at moo julee tabaski ba sëlmal jàng laqad jaakum vingt et un fois mooy féeg yaa ngi dund doo silmaxa xanaa yow yaa koy bëgg comme li fi daloon ñenn mag ñi gis ku sàgganu loolu métti ko loolu mu ñaan yàlla téyel ma samay bët daal bu mu gisati bàkkaar xanaa yow nga bëgg ko ñaan ko yàlla waaye feeg yaa ngi bëgg a xool da ngay xool vingt et un fois ngay jàng laqad jaakum ci gannaaw jullik iid ci adha muy tabaski sama borom assurel na la at moo ko def doo ci doo ci silmaxa ñu ne ko naafile yi jeexaguñ de yiw du doy mu ne ko am na naafile gu ñu tuddee salaatul kusuuf yu fës ci sunna la bokk buñ jàppee jant bi wala weer wi naafile googu ñuy def mu ne ku ko def ba noppi jàng laqad jaakum adadu allah muy soixante-six fois mboolem feebar bu nekkoon ci sa yaram yàlla saafara ko soo amee tawat ju la lëjal médecins yi ne mënuñ ci dara fexeel rek bu kusuufu shams amee wala xamar nga yëg ko boo ko jullee ba pare nga daal di jàng laqad jaakum 66 fois saafara na la ci bépp jàngoro ñu ne ko am na ci naafile yi bu des bu fës ba tey salaatul istisqa jullik sàkku ndox bu ndox téye am ñu ne baawu naan julli googu Seydi Ahmad Tidiane mu ne fu ñu ko defee ba noppi nga jàng laqad jaakum 28 fois loo ñaan yàlla mu nangul la ko ci saa si yaa ngi ci maqaamam kun fayakun ñu ne ko des na naafile yi jeexagul julli fajar yonent bi tàgg na ko nee na xayru mina dunya wa ma fiha Sidi Ahmad Tidiane ne ku julli fajar ba sëlmal jàng laqad jaakum benn yoon sama borom xamal na ma ne kooku du dee mukk lu dul wan nañ ko chaisam ca aljana ku saxal di jàng laqad jaakum gannaaw boo jullee fajar waxuma suba de ñaar rakkaan fajar boo ko sëlmalee jàng laqad jaakum bala ngaa julli suba ku ko saxal bala ngaa dee ñu war la sa logement ci aljana ñu ne ko Seydi Ahmad Tidiane naafile yi jeexagu am na salaatul istixaara yonent bi jàngale na ko foofu moom lu fa laqat jaakum def mu ne ku ko julli ba pare jàng laqat jaakum yàlla mooy yebal malaayika yi ñu ñëw di la dimbali ci la nga bëgg ñu ne ko waaw buñ ko toppee naafile yi léegi naafile gu nit naafile rek naafile ñaar rakkaan yoo dawal la ci julli avant takkusaan ja wala après tisbaar ga wala avant tisbaar ga luy naafile rek naafile yi ci des jeex seen ginnaaw jàng fa ayatul xirsi lu muy jëriñ Seydi Ahmad Tidiane ne naafila gum man di doon ci gàttal boo cité yii ma wax naafila yi ci des yëpp boo ci def bësalmal jàng laqat jaakum sama borom dana la wërsëgal xalaawatal iman cafkaak gëm yàlla nga koy dund ci sa xol ñu ne ko julli farata yi bu nekk wax nga ñu ngëneelam gannaawam boo ko boo ci jàngee ayatul xirsi muy laqat jaakum waaye waxugoo jumaa de mu ne julli jumaa buñ ko jullee bësalmal nga jàng laqat jaakum quatre-vingt-dix-neuf fois adadu saalih adadu asmaa illaahi alxusna nee na sama borom dana la wattu yow da nga dem ba dootoo mën a lekkati lu xaraam sa dund soo bëggee di saxoo lekk lu lew del def fu ñu julee jumaa ba noppi foo julee jumaa pare jàng la xar jaakum quatre-vingt-dix-neuf fois Cheikh Tidiane mu ne ku ko saxal da da nga dem ba doo mën a lekkati lu xaraam aljuma bu ñu julee jumaa ba noppi ku ko def sama borom dana la wattu ci lekk lu xaraam sama borom bu la wattu ci lekk lu xaraam am nga lijaaba loo wax yàlla mu nangu boo jaamoo yàlla yàlla gërëm lekk lu xaraam baaxul lekk lu xaraam mooy lekk safara ci sa biir rek 99 fois nga di ko jàng laqat jaakum gannaaw jullit juma feeg yaa ngi koy def sama borom dana la musal ci lekk lu xaram ñu ne ko am na bis bu fës ci at mi mooy yawmu arafa bis bu bari leer bis boobu nu ayatul xirsi def ak moom mu ne bis boobu ku xam ne tay la taxawaayu arafa nga jàng ayatul xirsi adadu dawrul fëlk mooy 360 nga jàng ko ayatul xirsi mooy laqat jaakum buñ ne tay la bisu arafa nga toog zikkar laqat jaakum 360 fois nee na sama borom dana ngëpp ci sa loxo fegal la mboolem luy tartari àdduna ak àllaaxira allahu akbar ñu ne ko am na bis bu fës ci at mi muy bisu tamxarit yow ma ashura bari ay xew-xew lool nu la xat jaakum def ak moom Cheikh Tidiane mu ne ku koy zikkër mille fois ci jouru ashura yàlla mooy tàggat arwaax yi mooy ruxaaniyaat yi ñooy nekk sa xuddaam ñëw di la liggéeyal boo soxla oon million léegi ñu indi la milliard léegi boo ko soxlaa ñu indi la sax ci rek nga xool roxaan yi loo soxla ñu indil la gaa yi xam roxaan nag xam xam course ñoo xam loolu ku ci bëgg am roxaan boo xam ne loo soxla mu indil la ko Cheikh Tidiane mu ne saxal buñ ne tey la ashura ngay zikkar laqad jaakum mille fois ker bu la ci yàlla wuyoo roxaan yi ñëwal la loo soxla ñu indil la waaye ñun nag soxla wuñu roxaan nag ki bind roxaan lañ soxla muy yàlla buñ ko laajee ku mu yebal ci ñun ñu jël xam-xam la bu muy jàngale waaye waxu la na ni nga koy defee di yëpp ñun buñ koy zikkar jaamoo yàlla def àddee yonent bi sax xaar ci yàlla nag yiw yi ñu ñu ci dig mu jox ñu ko yoon waa ngóob bokk na ci ngëneel yi laylatu nisfu min Sha'ban weesu nañ ko guddig fukkeelil juróom ci su Sha'ban ñu koy tuddee laylatul mubaarak mooy ñaareelu laylatul qadr yi ku ko saxal guddig nisfu Sha'ban gu ne nga jàng juróomi téeméeri laqad jaakum nee na duñ lay xisaab ci sa bàmmeel kenn du la laaj ci sa xabru fañ la war a laajee yonent mooy teew kon koo dégg mu naan man daal bàmmeel a ma jaaxal lëndëmaa yu bàmmeel xataa yu bàmmeel tiitaa yu bàmmeel digal ko muy saxal ginnaaw mu ngi def li ñu koy digal ci jaamu yàlla nay saxal buñ ne tay la guddig nisfu Sha'ban mu def laqad jaakum juróomi téeméeri yoon duñ ko laaj ci bàmmeel ker bu faatoo kenn du ko laaj ci bàmmeel boo ko weddee nag da ngaa xabul sunna am nañu jàmm ñoo xam ne yàlla du leen xisaab fenn kon lu ñu leen di laajee ca bàmmeel ah lépp lu ñu leen di war a laaj dañuy fekk jox nañ la réponse bi jeex na enquête nga bugg a dem defi indi lañ la résultat bi loolu saxati xam nga même ki ñu laaj mu tontu texe na waaye nag layoo gañe li muy neex neex maam xalifa mu ne ñàkk a layoo ko gën dégg nga wax ji nga lay ñu ne la yaa am dëgg lu muy neex neex ñàkk a layoo ko gën a noppale moo ko gën kon ñu laaj la nga tontu lu muy neex neex am na lu ko dàq mooy ñu far laa ñàkk a laaj ndax jox jot nañ sa résultat ba pare boobu dafa am ñu ko yàlla di jagleel ci jullit ñi ñooñu nag ku ca bugg a bokk del def lii Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu di wax di jàng laqad jaakum ci guddig nisfu Sha'ban Sidi Ahmed Tidiane mu ne kuy xëy suba jàng laqad jaakum ngor nga jàng ko sama borom dan la wattu ci gàkk-gàkk yi corona yi ñuy tudd ak yu nu mel yëpp gàkk-gàkk la rek saxal ci laqad jaakum suba ak ngoon xool ba xam dana la jot wala yadurruhu shay'un la wax maa daama alayha fekk yaa ngi koy def loraange du la jot kon mu musuwaay buy tax a mucc ci feebar yi yi ñuy ragal a ngoog suba ak ngoon laqad jaakum foofu nag joxe wut lim waaye gis nañ ci azkara moom Seydi Ahmed Tidiane mu ko daan def set suba set ngoon bokk na ci ngëneelu laqad jaakum ku dem ba war a tëdd maanaam koo xam ne dem nga ba yëg ne bëgg ngaa dem dallu ji nga jàng laqad jaakum doog a jublu doog a sóobu ca dallu ga bu dee guddi ba bët di setee bu dee bëccëg fa nga dalloo ba fa nga yeewoo yàlla mu ngi lay sécuriser daara du la lor xam nga am na ci njabarkat yeeg def kat lu bon yi bala ñoo mën a jekku nit ba ta muy nelawee bari foofu la ñuy profité moo tax ñuy musu wa min shari gaasiqin ida waqaba wa min shari nafaasaati fil uqad seen yu bon yooyu suuf seddee ñu gën a bari di nelaw fa lañ koy gën a ñaari digg yi rek digg bëccëg digg guddi te yooyu heure yi nelaw lañ digg bëccëg xaylu la mu ngi fi digg guddi nelaw naturel te nelaw yooyu nag lu ne xaj na ci boo bëggee booy nelaw nga am garde corps yu lay garde ba liggéey du yegsi ci yow njabeer du yegsi ci yow làmmiñ du yegsi ci yow demeet demeet ba ba muy jeex defal foo war a fooy waajee nelaw rek jàngal laqad jaakum bala ngaa nelaw yàlla nañu yàlla fayal Sidi Ahmed Tidiane jàngale na ko pour jullit ñëpp ma leen koy jotal bokk na ci njëriñ ya nee na lépp loo ragal sàcc yàqal la ca wala tooñkat sa alal ji da ngay ragal agresseur da ngay ragal sàcc da ngay ragal yàqkat yàqal la ko tegal sa loxo ci loolu nga ragal sàcc yi sàcc ko wala yàqkat yàq ko jàng ca laqad jaakum yàlla wattul la ko loo teg sa loxo ci kawam jàng ca laqat jaakum bu dee loo xam ne mënoo teg ca kaw nga teg ko rek ba sa loxo laal ko nga jàng laqat jaakum yéene sécuriser ko ko loolu sàcc du ko du ko jël yàqkat du ko nangu ci yow moo tax mag ñi ñoo baaxoon seen ngat yi buñ ko li ñuy wax ngat buñ bayaan ba dugub ji kii ñu fi ñu koy rajale buñ defaan ngat ba pare dañuy taxaw ci ñeenti koñ koñ bu nekk teg loxo jàng laqat jaakum um lañ koy sécuriser buur du ko nangu safara bu daay doon tàkkee fële ba jub ngat loolu dana fay waaye du ko laal jël leen assurance go loo ragal sàcc yàqal la ko wala yàqkat wala agresseur tooñkat ba mu jeex teg ci sa loxo jàng laqad jaakum yéene ci kaaraange Seydi Ahmed Tidiane mu ne ku def ba jant bi di fenk saa yoo yëgee ne heure teel la jant bi di fenk nga jàng laqad jaakum heure teel la jant bi so te loolu nouvelle technologie yomb na ci tey heure teel la jant bi di so nga jàng laqad jaakum ñetti yoon nee na yàlla fegal na la ayu lépp lu ci alam bi lu jant bi di fenk di ko tiim di soyee ci moom rek yàlla fegal na la aw xayam loolu nag da nga koy natt boo xamee ne jant bi daal jamono bii ñu mooy waxtu bi muy fenk jurut génn di xooli jant bi bu ne pile rek nga jàng ñett laqat jaakum boo xamee heure bi muy soy def noonu nee na lu jant bi di tiim yàlla dana la musal ci aw xayam xam-xam yi cher na bokk na ci ngënee la laqat jaakum bisub aljuma xam nga waxoon naa laqat jaakum gannaaw gee waaye nag bu ñëwee ci bisub aljuma ngoonuk aljuma ku cay faral di jàng laqat jaakum ñett yoon njaberkat du la njaber mukk kenn du la tooke ba mu jàpp kenn du la poisonné ba mu jàpp ñaata nit lañ fi posone mu jàpp waaye ñaata nit lañ fa posone jàpp ku bëgg bu la poson jàpp bu la njabar kat njabar ba jàpp la del saxal ngoon ak àjjuma gune nga jàng ñetti laqat jaaku mooy heure boobu ñu def xadara rek soo muusee nag bu gaa yi xadara ba daane rek balaa ñuy nodd rek nga dugal ko foofu bu dee koy xadara ma xadara wu nag ngoon fu mu kii ñetti laqat jaakum Seydi Ahmed Tidiane mu ne ku koy jàng ci ngoon ak àjjuma njabeer kat du la mën a jàpp kenn du la mën a posone ba mu jàpp ba mu lor la xamoon ne poson li muy lore lore du lore ci lu du ndigalal yàlla demet bokk na ci ngëneelu laqat jaakum tawat ju dal nit ñu faj faj mu tëx a wér nañ bind laqat jaakum juróom-ñaari yoon mbir mu set xooj ko ci ndox jox ko aji tawat jooj mu naan ko kon rek mu jug wér jàngoro juñ ne tëna mënatuñ koo faj bu dul dee boo bindee juróom-ñaari laqat jaakum jox borom bu ko naanee wér Seydi Ahmed Tidiane ko wax nee na nag su fekkente ne kii dafa feebar médecin yi traité traité ba sonn mu tëye wér nee na tiim ko jàng laqat jaakum téeméeri yoon fekk yaa ngi fas ci sa xol nag yàlla defal saafara jëmm ji nga tiim di jàng laqat jaaku maanaam boobu mocc lay doon téeméer bu téeméer ba téeméer yi mat nga ñaanal ko yàlla dana ko saafara ci feebar boobu ak lu ca médecin yi tële woon tële nag ak yeneen ak yeneen am na ci yoon yoo xam ne sax ay xalwa spécial pour laqat jaakum rek waaye yooyu moom damay bàyyi mu sedd ndax mbirum mag ñi la bokk na ci ngëneelam juróom benn fukki laqat jaakum ak juróom benn 66 su fekkee nit ki jaan da koo màtt wala jiit da koo fett xeet yu demee noonu yi am dangar yooyu laqat jaakum moo koy lugg moo tax dañ koy luggee jaan boobu moom mën naa bañ a yegg 66 rek sama ñoom bàyyi lu ñu ci doon jàng loo xam ne moom daawul daawul sax bari waaye man nettali leen waxu Sidi Ahmed Tidiane rek bàyyi sama waxi bàyyi 66 fois ci laqat jaakum Cheikh Tidiane mu ne ku tooke jàpp moo xam jaana ko matt moo xam jiite ko fett mbaa xeet yooyu du lore moo ko laal ñu luggee ko ko dana wér te nee na ba 66 yi di bar rek lay tàqali koog moom am na mag mu ma mos di waxtaan ak ci lii mu ne ma miraaran wa takaraaran jarbu naa lii jaan day matt nit wala jiit day fett nit ma tiim ko ji jàng laqat jaakum yaa ngi koy yëg mu naan waaw may jàng du ma matal 66 mukk lu dul tàqali koo naa moom bu bu 66 di ma rek tisooli na bu tisoolee rek da nga ji wàcc na ndax yooyu bu nekkee ci yow doo mën a tisooli da nga tujaat bu la duggee yooyu feeg feeg dañut ci yow doo mën a tisooli buy dëñi moo tax bu ko mag ñi daan lugg bu lugg ga di jàpp rek nga dégg tisooli jeex na dangar ji set na ci sa yaram 66 laqat jaakum dafay mocc dangar jël leen lugg lugg jaana ngoog lugg jiita ngoog ba ba muy jeexee bokk na ci ngëneel yi Seydi Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu nee na ku dem ba war a lekk ñam ñam wu mën a doon rek avant nga koy lekk nga jàng laqat jaakum doo teqali ko xéwalu yàlla si diiru dund ñam woowu yi poson du ci nekk ñam wooy ragal koy ragal mu jox la ñam def ci nangam nangam te mënoo ñàkk lekk jàngal laqat jaakum rek ëf ci ñam wa lekk xool buy poson du la wàññi buy noob du jàpp jël leen bokk na ci ay ngëneelam Seydi Ahmad Tidiane nee na su sa soxna nekkee en état wala soxnaas ku la jege yu mel noonu jigéen joo xam ne daal dafa ëmb ñu jàngal ko laqat jaakum 41 fois bu dee yow borom kër mën ngaa teg sa loxo ci kawam wala teg sa loxo ci biiram jàng Sidi Ahmed Tidiane nee na yàlla dana wattu doom ju nekk ci biir ba ëmb boobu du yàqu doom ju du juddu manqué mukk dana mët sëkk te it nee na wa yakunu al waladu saalihan doom jooju incha allah saalih lay doon sa soxna ëmb ba nga yëg ne ëmb baa ngi ci moom dalee ko ci 3 mois ba ba ca kaw nga teg sa loxo ci biiram wala teg sa loxo ci kaw yaramam rek jàng laqat jaakum 41 fois yàlla wattul ko doom ju ci biir ba du juddu gaale gàkk-gàkk du manqué mukk day judd ak cër yu mat te doom jooju Sidi Ahmed Tidiane nee na saalix lay doon ëllëg incha allah laqat jaakum mu ngoog su ngeen giggee nag biñ tafsiree laqat jaakum li ci ñëw ci wet ak yàlla ci wet ak yonent bi li mu dajale ngeen xam ne lii yëpp tuuti na ci bokk na ci secret laqat jaakum am na ñum sonal am na ñoo xam ne fuñ nelawee rek dañuy gént ay gént yu jaxasoo di gént di xeex di gént ñu leen di rey di gént ay deret yu ñaaw yu bizarre yu bon yooyu di la ñëwal ci gént te bëggoo mu lay ñëwal laqat jaa ko mën naa dox sa diggante moom Sidi Ahmed Tidiane mu ne ku loolu di arrivé del de foo demee ba war a tëdd rek jàng laqat jaa ko onze fois adadu huwa yooyu doon la ñëwal ci ay biiru seytaan yooyu du la du la ñëwalati mu essayé leen li may wax ku ne rek man daal gént yu amul àpp tey gént lu ñàng moo ma sonal nay def balaa muy tëdd mu jàng laqat jaa ko onze fois xool bii secret sax man gis naa ci lu yéeme suñ toll nii bu la nelaw xawoon na të ngay jàng laqat jaa ko onze boo muytu balaa onze yi mat nelaw yooyu ñëw waaw waaw moog ayatul kursi yi loolu kay maa ko tajriba acca ñu dem même ayatul kursi yi lii ñuy wax wax ci laqat jaakum wax nañ ko ci ayatul kursi yi ayatul xirsi danañ koy jàng pour tàggatoo cim tukki ngay tàggatoog nit rek ki ngay tàggatoog nga teg sa loxo ci boppam jàng laqad jaakum benn yoon yàlla dina la ko wattul ni mu tàggatoog yow dina ko dellu siwaatee ci yow sa njaboot bu la doon tàgg di tukki nga teg sa loxo ci ci kaw boppam jàng laqad jaakum benn yoon dana da nga ko sargalaat du dee àll mukk ker bu bakkanam naree dee rek yàlla dana ko xiir ci ñib si balaa muy dee du dee àll mukk te it danañ ko wattu ci tukki moom feebar bu koy lor du ko fa dal saa yooyu tàggatoog sa njaboot muy tukki defal loolu dégg ngeen wax ci Seydi Ahmad Tidiane wax ne bëccëg goo mën a jàng laqat jaakum benn yoon doo ca dee sa kër bu garaaw mu ngi nii douze heures de temps ci bëccëg douze heures de temps ci guddi soo fexee douze heures de temps yu ne nga jàng laqat jaakum xamal ne douze heures de temps yi moom doo ci dee xanaa yu ëllëg yi douze heures de temps yi ci guddi gi boo ci jàngee laqat jaakum doo ci dee lu yéeme mu ngi nii bis bu yàlla namm nit ki faatu douze heures de temps boobu du ci mën a jàng laqat jaakum Baye Khalifa Niass radiyallahu anhu mu ne bis bi bàyyam di faatu Alaaji Abdoulaye Niass alors bala de nee na yoor yoor ba tiim na ko naan bàyyi jàngal laqat jaakum yaa ñu jàngaloon laqat jaakum ku koy jàng ci bis bi doo doo ci dee nee na di ko wax bàyyi mënu koo jàng feeg yaa ngi mën a jàng laqat jaakum rek dee go c'est-à-dire kon Sidi Ahmad Tidiane mu ne bëccëg goo jàng laqat jaakum benn yoon guddi goo jàng laqat jaakum benn yoon doo ca dee wa allamnaahu min ladunnaa ilman ki ñuy nettali lii foofu la nekk de bokk na ci ngëneel yi Sidi Ahmad Tidiane mu ne boo amee sa kër wala sab tool wala sab palaas wala dëkk booy sañc xeet yu mel noonu nga bëgg mu am kaaraange nee na jàng fa laqat jaa akum foofu nag joxewul lim loo jàng baaxam kër gooy sañc sañcee ko ko tool booy ji jiyee ko ko dëkk booy sañc sañcee ko ko place booy sañc sañcee ko ko nee na yàlla dana ko wattu dana wattu barab boobu soo amoon conteneur nga ragal gars yi def ci njuuj njaaj wala mu sànk ci yoon yi wala yu mel noonu boo chargé ba mu fees jàngal laqat tegal sa loxo ci conteneur ba laal ko rek jàng laqat jaa akum wala nga yeb sa marchandise ci sa gaal yow nappkat bi wala nga yeb sa marchandise ci sa oto wala oto keneen mu war a dem feneen te bëggoo mu accident marchandise ma yàqu wala yu mel noonu fexeel rek teg ci sa loxo jàng laqat jaa akum nee na dana yegg te dara du ko jot kon kooku assurance pure a ngi noonu Seydi Ahmad Tidiane mu ne kuy jàng laqat jaakum soixante six fois gannaaw bu mu séenee safara suy tàkk safara si dana fay loolu mag ñi daan nañ ko fayee daay loolu moom mag ñi xam nañ ci dara suñ ne woon daay ga tàkk na nga janoog moom téye sa course jàng laqat jaakum bala nga am soixante six mu fay su fekkee nag dangaa jàng di dox di dem foo loo romb rek loo romb rek tàkk-tàkk bi du fa yegsi loolu moom kii sekkere la ci ak xisbu say fii bu ñëwoon safara saa ngay tàkkee fële nga toog fii téye sa téye di jàng xisbu say fii na safara si di tàkk ba wër la waaye du ñëw fii safara saa ngay tàkk fële ngay jàng xisbu say fii départ am na nag looy ubbee di jàng di jëm ci safara sa loo romb du tàkk boo bu safara sa fayut ba ba ngay yegg boo yeggee bu la neexee duggal ci biir safara si du lakk loolu Cheikh Oumar Foutiyou def na ko ci Mali moom ak njabootam yëpp nekk ci dëkkam. saay-saay si ñëw gaw leen ak ay matt ak ay yu mel noonu taal dëkk bi ba mu wër pour buñ mën a génn te boobu Cheikh Omar mu ngi préparé moo gaay bi pour génn ne ay wa gars yi départ la ñu ne ko di gisoo safara si ni mu tàkkee wër ñu mënuñoo génn safara si mënoo fas mënta sotti jéggi ko te boo ci jaaree lakk ñu bëgg leen gaw leen foofu ci safara si rek ba lottal leen Cheikh Omar ne topp leen sama gannaaw tudd yàlla ñu topp ci gannaawam tudd yàlla muy jàng say fii di ko tari da ko mokkaloon kam fatiha di xuus safara si fayut de waaye mu ngi xuus ci digg safara si moog ñim ànd ak waxuma ñoom waxuma seen yére waaye fas yee ñu war sax lakkut loolu Cheikh Omar def na ko fii ci Mali demal ci aljawahir wa durar dana dana la indil kisa boobu nam demee say fii yu day def loolu même laqat jaakum it da koy def 66 fu safara di tàkkee rek kon laqat jaakum danay tax a mucc ci lakku safara dégg nga wax ji bu baax waaw bëri na waaye ma tëj ko laqad jaakum Seydi Ahmad Tidiane nee na ku saxal di ko zikar bët bu set nga di ko zikar ba dund ñeen fukki at xijaab dëñ na sa digganteeg rasulillahi sallallahu alayhi wasallam est-ce que dégg ngeen wax ci ku bëgg a dem ba sa digganteeg yonent bi xijaab dootul ci amati foo ko bëgg a gisee gis ko xam nga da nga dégg aarif yi di ko am na ku naan teqali ko wumaag moom diiru juróom fukki at Mawlaana Cheikh Alaaji Omar Ndaw wax na ko de nee na juróom fukki at sama bët bi teggee ko wut ci rasulillahi sallallahu alayhi wasallam am na ci aarif yi cu ne ku ne benn cerse bu ma ko toogoon te gisuma yonent bi dootuma compter sama bopp ci jullit ñi ibnul arabi ad-damrawi mbëkk néegu Seydi Ahmad Tidiane 24 fois dana ko gis yonent yàlla Muhammad par jour maqaama boobu ñu ngi koy doon ci moom ba tey kon am na ñu koy gis ay yoon ci bis bi am na ñu koy gis benn yoon ci seen dund waxuma nag ki gëm na yonent bi duñ ko gis kooku affaire am yàlla tëlewu ko yonent bi maqaamaam bi ëpp na loolu yonent yàlla Moussa faatu ñu denc ko ci bàmmeelam ñaataat yonent bi di rañaan yonent bi nee na maa ngi ko romb ci bàmmeelam bi muy julli ki wan yonent yàlla Moussa muy julli ci bàmmeel kay nga déggee ci ne Moussa kon deewul comme dee yi waaye li wan yonent bi ba mën koo gis kay mën naa woon xeetu yonent bi yonent bi bañ mën koo gis gannaaw bañ ko dencee ci suuf kàttanu yàlla yonent ya faatu woon ay siècle bañ denc leen ñoom ñëpp dem dajee ci baytul maqadis yonent bi jiitu leen julli ñu gis ko yàlla dana ko jox yonent bi ci yonent yi ña ko jiitu woon mu wan leen mu wan na leen bañ gis ko ñoom ñëpp yonent bi gis na leen kam ni saxaaba yonent bi gisee yonent bi la yonent bi xàmmee mboolem yonent yi amul ci kenn koo xam ne saw melo ci tiire la koy xamee dala dalaa gis ci jëmm bi ay ni tura bi yétika na nga doon dundee la la ko yàlla wane yàlla dana jox loolu yonent bi ci yonent yi ay waay xeñ ñu ko ci yonent bi te xoolal xam nga lu tax mu jox loolu yonent bi ci yonent yi pour dëggalal xelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kullan naqus alayka min anbaai rusuli maa nuthabitu bii du ma ci yem nag dama la lay wan wan yonent yi ba nga gis leen moo tax xoolal loo jaamu-jaamu yàlla amoo góo assurance ne doo yàqule seytaane du la yàqal fii léegi sa bët bi tegoo ko ci yonent bi ba ayni turabiyati yi ku xas gis yonent bi yàq datan ba ayni turabiyati yi seytaane dootu la yàqalati kon loolu lu existe la boo gisee ku koy weddi nag doxal rek romb ko te xam ne kooku dadul cëram rek waaye ñi ñi ñi mu doon seen cër ñooñu duñ ko weddi alxaaji Mouhamed Khalifa dem na ci Bawal ñu laaj ko waaw ndax am na ci jamono ji ba tey ñuy mën a gis yonent bi salaa salaam yàq datan mu tontu leen wéy ne leen ah xaw ma kan de waaye ñun las naa nu faariquhu yowman walaw baudan diyaaruna an diyaarin muntahal buud ñun dee duñ teqalikoo moom benn instant donte suñuy kër ak këram soree na lool ci distance waaye duñ teqalikoo moom yonent bi kenn teqali wut ak moom loolu moom dama leen koy jegel ci charia ba mu leer kenn teqalikoo wut ak yonent bi ci ñun xam nga lan mooy am xijaab bi la muur ba mënoo koo gis ba mënoo koo yëg wala xijaab ba dëñ rek nga mën koo gis mën koo yëg yëg ko nag moo la yóbbu ci gis ko li lay xamal ne yonent bi teqalu ko kenn ci ñun ah yonent bi sallallahu alayhi wa alihi nee na ku ma nuyu ci yéen ma fay la kooku teqali ko naa yow ka nekk Tamba mën ngaa toog fii nuyu ko ma fay la te nee na ku ma nuyu ci yéen yàlla delloo ma sama ruux ma fay ko hadis saxiix yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñàkk a teqali ko ñun moo tax ku koy nuyu ci ñun di ko nuyoo asalaamu aleyka boo doon taayee ci julli fooy mujjee asalaamu aleyka ayyuhan xoolal aleyka rek doy de waaye ayyuhan nabi bu fi nekkutoon da nga ko ko wax yëg na mu ngi fi sax moo ak gëm ko moo tax nga ne asalaamaaleyka yonentu teqali koo wut ak jullit xaqiqatoom muy ruuxam teqali koo wut ak mbindeefum yàlla xijaab bi nag mooy tax doo ko yëg boo ko yëgu doo mën a doon jullit man nga doon jullit xijaab bi tax yëg nga ko waaye doo ko gis boo ko gisagul amugoo garanti soo bëggee xijaab boobu nag sa digganteeg rasulillah yi jéem takk saxal di zikkar laqad jaakum bët bu set nga def ko ba dund ñeen fukki at xool kon ayatul xilsi mu ngóog ma firi ko firi mu gaaw mi sama borom daf ne laqad jaakum wallahi dikkal na leen rasulu ndaw te moo di ab yonentu min anfusikum bu bàyyeekoo ci yéen mooy bu bokk ci yéen rek azizun aji jafe la alayhi ci yonentu boobu maa anittum coono seen mooy lépp lu leen di sonal xarisun aji xër la moom yonentu boobu alaykum ci yéen mooy xër na ci lépp lu leen di jëriñ raufun aji ñewentu la rahimun aji yërëm la bil muminina ci way gëmi yàlla wax ak yonent bi ne ko fa in tawallaw suñu dëddoo wala gannaaw bañ a topp njub gii nga leen di woo faqul waxal ne xasbiya doy na ma allahu yàlla te laa ilaha amul benn buur bi yoo jaamu jaamu ko di jur njëriñ ñàkk jaamu ko di jur lor illaa huwa ku dul moom alayhi ci moom yàlla dong tawakkaltu laay dëgërndikoo mooy ci laay sukkandikoo woo woo moom yàlla rabbul arshi mooy borom aras al azim nga di aji màgg yal na yàlla defal ñu tawfiq allahuma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam waltuf bina wa tadarik subhana rabbika وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين